pàkkam ya mooy sa wetaas ci ñun mooy dox ba tey màggal ko moo di li ci ñun di ko sant tey biro bee fa ndar moo tëmbër ya fa jaar ba wey ku ci dul sëriñ Tuuba keroog si ñëwoon nga wey biro bee fa ndar moo àtte mbër ya fa jaar ba wey ku ci dul Serigne Touba ku ci dul Serigne Touba ku ci dul borom Touba keroog si ñëwoon nga wey soldar sa ak waa tribunal keroog ñëpp xëy ka naan borom Ndar ñëw taxaw di ku yàlla jay. naa leen mardu maay seen yàlla tey ku mu woo keroog présent nga waawaax mbaa nee nga wéy mu ni leen baleel lislaam mu fay bu mu weesu tey tas jàkka yeeg seen daara yi bu ma kenn lay ku noo ma rey wii ma fay ko mu dal di xëy di jooy foofee ba xëy doon waaja wéy Cheikh Bamba moo gantal keroog yanu yan ba bi mu dellu see kenn jàmbatul boobee ba Bamba moo gantal keroog yanu yan ba bi mu dellu see kenn jàmbatul boobee ba tey bëggoon ak Serigne Touba dañuy nasaraanu tey xawlan wa fi'lan moo waral nuy bamba tey dugoon ak sëriñ Tuuba ba tey jullikaay yi fay kon salta war kuy woote tey seex bamba tey ku fi xam keneen ku fi ñëw te jaar fa mu jaar ba wéy ku ni amul ku ni amul feeñul ci ñi du ca gaañe wéy bi mu tàmbalee bañ yaa ngi reenaal yi wey ku ko njortu woon daa réere mbir tuubaa ngi tey tuubaa ngi tey ku ko réere woon mooy ngëm gi lay ku fa soobu raw Cheikh Bamba kenn kenn du ko sóoru tey ña ko réere woon di ko méngaleeg ulama wey dañu leen jëlee te yelleen fa ndar moom rek a wey diiru atam yam def gabon la seefu na jàkka yaa nga fa sampe tey ñuy sant rek ku ne jàmm xew ci sa diina tey bu dellu see fu nu jàkka yaa fa sampe tey ñuy sant ku ne jàmm xew ci sa diina tey riddal ilaaru halal xadim di ki yàlla may jërëjëf sëriñ Tuuba sa jëf na ko yàlla fay jébbi faal anjara njaay चेरंगलेल चलन लजाई लंप माम सीन बंजाई शेख इब्राई अबोरी जाल अन्ना सब्दे इसे इब्रफाल बुफलनी मुमाकल को मैं सभी के कुंभवाल सुनवाजे अबोरी जाल अन्ना सब्दे इसे इब्रफाल बुफलनी मुमाकल को may sa biige kumba faal sama waajey aboori jaal man de bagna Bamba bagle la ko lampam ba bagle ko soppem ba Mustafa mabur bur baaxal baayu Fatima ak bayu rokaya Roqaya Kalsum sibtu Asima Qalib sama yeneen moy no balbi ala soppey rasulilaay def leen ni baayu Fatima Këlsum sama yonen mooy noobal bi am na soppey sëñ Saaliwu def baay Saal borom xel sama waajey aboori jaal gor la jër la te gar laay anta teel a xam yàlla moo liggéey bur yàlla fay ko sëriñ Saliou bari ndam moo liggéey bur yàlla fay ko sëriñ Saliou bari ndam moo liggéey bur yàlla fay ko sëriñ Saliou Mbacké moo bari ndam góor la góor la te góor la anta teel a xam yàlla moo la géey bur yàlla fay góom sëriñ Saaliw Mbàkke moo bari ndam góor la géer la la ak a teel a xam moo la géey bur yàlla fay góom sëriñ Saaliw Mbàkke moo bari ndam te yàlla jël na baayu soxna waalo ويادنا بسم الله ما نجلن بجالك جورينيو سيخ بامبا برم كمالك موفي دسون تدومي سيخ بامبا بوريال يبوكو موفكي بامبا موفي نوال خليفة الإلهي فرزال امك مودن خادم رسول الله موفن وان خليفه الاله فرزال امك مودن خادم رسول الله يلا يلا يكسي مقام بجاي من سمات والخديم من جكلا وخير كريو لمبا dem soog laa xamal bisam bur yàlla ne bind na am malaayikam ma nga aras day woor bëccëg boor guddigam moo nuy tere woor guddi kooram ga ndekkoon guddeeg bëccëg la nuy woor koor ga ma ngi faaj junni bi junni malaayikam fii jëggalul waay woor ya fii onaaga bis bu ñu ñu daal dem fa yàlla ni ko nga jéggal gaaya woor ngir yàlla buur mi leen jéggal naa ña woor ngir yàlla ba jéggalaale ñi umul ngir yilla mooy gaaya leen di joxe ñam yu sell ak ndox yu teey ngir sàkku yoolub yàlla buur yàlla daldi siñe yoon niir diwaan ni wubbi naa ajjana tey ngir ramadaan ñu daldi tëj bunti jannatu nayim tëj bunti jaanama keroog ba yépp jiim mboolem ku faatu woon ci doomi aadamam kenn dootu leen ci xeeti jaanamam keroog bi sub kumte la yàllay jëggal téeméeri junni góor la yàllay jëggal fii ñaari fan mu def ko ñaari téeméer fii ñetti fan mu def ko ñetti téeméer ñenanti fan mu def ñenanti téeméer juróomi fal mu def juróomi téeméer nii lañu koy fule ba weeru koor xëy ñenanti aljuma ya dambe seen fay ku doge tàndarma bu ci weeru koor ñu ful saraka ya téeméer su laylatul xadar ñëwee mu ful koom junni bi junni malakoot ak mulkoom ba bis bu ñuy wari mu jéggal ñéppam ku bokk xeetu Mustafa ku ko soppam ba bis bu ñuy wari mu jéggal ñéppam ku bokk xeetu Mustafa ku ko sopp ku dul ku murtat mbaate kuy bokkaale mbaateb rambaaj mbaateb jabar bu far gisaana yaale baa kuy dogong ba limal kuy njaalo mbaateb rambaaj naan kat bu man di xaaloo ñii borom aras ni barkeb ramadaan munu leen a may yërmaande bañ tabbi jinaan yal na buur yàlla yërëm daaray te suturaal nu ba am aaray ni amina amina ne ci darajay Muhammadul Amina barke jerejeuf ah man dama daanu leer Baye Ibra Baye Ibra sëñ Moustapha Ñing daf ma daniel machallah sama soppe won woon alum neen man ndeysaan te yalla dogal ñu di sante waaw mi ngi ni de waye daniel nama machallah yalla na Serigne salih Mbacke fay min ngeen gi pay waye di ñaanal nak ñi woor ñepp tamit yalla borom bi nangu suñu koor amin te fulal ñuko ay yiw yu kawé njott mhm. sëñ Moustapha bala ngay dem ñu laaj la rek euh, kan ngay roy Baye Ibra maa ngi lay bàyyi sëñ Moustapha waaw dégg nga kan, kan ngay roy kan ngay roy su dee daaj yi ñuy jàng moom wax dëgg yàlla bu dee daaju jamaxtali bi moom man daaju Sëñ Tuubaa laa ko tuddee waaw. kon su ma ko déggee dafa mel ne da koo génne waaw. su ma ko déggee dafa mel da nga génne sa daaju bopp pour am foo ko jëlee. waaw mën naa ni daal sëriñ bi moom moom mi bind xasida yi moo jàngalu xasida yi danoo sant rek bi mu ngi boolee ci ñu koy jàng. ba nga xam ni moonu baaxee li nga xam ni moom lañ ci jàng. ndax jamantali bi mu génnee mm-hmm. boobaak léegi kenn amul jàmm bañ ne ba sonné téléphone yëpp moom la ñuy wuyoo te loolu nag yaakaar naa ni du sa ndimbal waaye baaxub Serigne Touba la Serigne Touba sëriñ Serigne Touba waaw góor euh, ngi day mel ne sëñ Modou Dieye seen mën naa jegi seen soo deminta waaw mi ngi waaye waa cité comico Mermoz mm-hmm. ñi ngi rafetlu jataay bi bu ma tuddee Kine Sarr dana ma togal siyaar bi ci loxo soxna yëpp ak mboolem ñi nga xamni ne ñi ngi bëgg Lamp Fall sëñ Modou sen wa soxna sëñ Modou Dieye sen kon mëna na ci si sëñ Ibra mën naa jege si bu ko défé ñu dolé sante rek euh, ñi nga xamni ne ñoo téw fi ci spécial qualité euh, bi nga xamné ne Lamp télévision def ndako mhm. waaye nag delloo kañ ki nga xam ne moo jar kañ ñu ko waxee woon léegi di sëñ Alioune Thioune mhm. toftal ci ki nga xam ne mooy Seydi Badji Thioune mhm. waaye toftal ci tamit ki nga xam ne mooy sëñ Ibrahima Guèye ndeysaan waaye buñ ko waxee mel nañu wasaare nañ ko ci képp koo xam ne yaa ngi yëngoo Lamp Fall mhm. ndax mënuñoo lim kon dañuy wax rek euh, sëñ Modou Dieye Sène Modou Dieye Sène mën naa jege si mën na jege si bu ko defee rek ñu wéy liggéey bi ndax bu paree moom sëñ Moustapha Seck mooy ñëw mi ngi noonu kon sëñ Modou Dieye Sène na ñëw joxe ndewenal bu defee fanweeri minute sëñ Moustapha Seck ñëw tëj ci wàllu xaside mi ngi noonu waaye waaye soxna Aminta yal na yàlla may ngëm yal na yàlla dolli suñu ngëm yal na yàlla may nu bari na ku gëm te wóoluwul gëm te wóolu daa baax da ngay gëm te wóolu dëgg la Baye Ibrahima yal na yàlla dimbali waaye comme ñu ngi xaar euh, sëñ Modou Dieye Sène waaw ñëwagul bàyyi ma dugg si soxna yi xool ñoom ni ñu toogee waaw yëngal yëngal leen tuuti ak ñu doon defaree ndogu waaw jeex na ma ngoog bu ko defee ma dugg si yëngal leen tuuti. ndeysaan wax euh, toppal ma leen toppal ma soxna Aminata Mbaye. Baye Ibra. dama wax ne ba sama yaay booy sax xool ko nu mu toogee. waaw. ndax suñu yaay maam Diallo mi ngi fi. Ah, jox ko ma wax tuuti nag. ñu xool lu mu wax ci bis bi. ak ak maam say pen ñu ngi fa. ak waxtaan yu am solo yi nga xam ne ak su kay seen. waaw ñu ngi fi de. suñu yaay maam Diallo jox leen ñu wax de. ñu wax fi tey ay thèmes yu am solo. sëñ Modou Dieye seen na ñëw. mu jëm ci wàllu dimbalante. waaye wax tamit ci wàllu euh, korité bi wax ci wàllu Serigne Touba mais indi nañu tamit ci li nga xam ne mooy euh, yokk yàqu-yàqu bi nga xam ne mooy. sëñ Modou Dieye seen loo ñuy wax yaay booy ci wàllu boobu nekk si Modou Dieye seen toogal ni awkat yéeg ci kaw. danaan laaj ñaari baat rek yéeg leen yéeg leen. bàyyi ma mayal tuuti maam Diallo Gueye. waaw bisimilah mu sànni ñaari kàddu te ñëwaat. bisimilah waaw. bisimilah. bisimilah mina seytaani rajim bisimilah rahmaani rahim. man nag defe naa ne soxna Aminte. Aminte sama wax lu ñu sori. ndax damaa ànd ak sama rakk su koy seen. ak maam say pen. dama leen di bàyyoo kàddu gi rek. dimbali moom koo dimbali ko rek xam. man am ay milliards dimbali su ma la xoolee sa kanam pour waase sax damay daal dem ba laas taaba ku ñëw jox la man loolu laa xam man waaye yor sa alal ba noppi bañ a dimbali kenn ni ca katam kaw du yokk mukk ndax dafa am lu nekk ci kaw loxo bi li ci calli bu wëddul rek benn du dikk man loolu laa ci xam léegi nag maa ngi koy bàyyi su koy seen su ko la jox maam say pen am waaw soxna maam say am ñu jox la kàddu gi rek. billahi mina seytaani rajim sant sëriñ Touba bu wér ñaanal sëñ Sidi Maxtaar yàlla na fi yàgg te wér borom rajo bi yàlla na ko yàlla yokk amiin waay amiin waay yàlla na yokk waaw. waaw Baye Ibra. maam Seye Adamu. mel na ne fu mu toll nii soxna si barkeelu na. waaye xam nga lépp rek day delluwaat ci jërëjëf Serigne Touba. dëgg la ndax yaakaar naa ne mooy tàmbali gi. Mhm. waaye itam mooy doon jeexital gi. wax nga dëgg du ma def lu dul rek bàyyi kuréel gi. waaw ñu fas yéenee ñëw si mujjee seen moo ñëw. si taxawaay bi nga xam ne moom la ñu fas yéenee indi. dafa jóge fu sori sax dafa jàngi woon Sarsara. yàlla dogal sarsaar la jógee jubal si fii Ndakaaru kon pasteefam ak bëggam sëñ tubaam ak kiir bunt xasal yi mokkin fii tey ci plateau bi ma jee seen asalaamaaleykum waaleykum salaam sëñ Ibra euh, sant bu baax di leen bu baax ci li ngeen def ci am gu mu am solo dégg na sànq sëñ Boussara wax ko euh, léegi la média yi bari waaye am na ay jamono euh, bu ne teleb Serigne Touba kenn du tudd benn télé bu dul lamp lamp faal waaw kon ñun ñoo ngi bég bu baax di ñaan suñu borom taxawu leen euh, ba fa ngeen bëgg àggale euh, télévision bi suñu borom àggale ko fa ci barke Serigne Touba Mbacké allahumma waaw sëñ Modou Dieye Sène eh, ñu bàyyi la nga yéeg sëñ waaw soxna mi noonu la ñu eh, eh, wax war fa nag li ñu indil tey ci ndeweneel bi xanaa tey dina bëgg ndeweneel lu foor waaw tabarkalla ñu fi moom li ñu joxe diis na lool waaw ma ngoog kon sëñ Modou Dieye na na na tàng na tàng bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إنما الأعمال باليد ونيتي تمرق بزكاتي طوبى عبد المريد الغد في الأمم بحمد أو بالأوهديات تخيل المريد بدل بخدمة أو بالأوهديات طوبى عبد المريد الغد في يخرج أو أو هديات مليات المريد تحية المريد بالدلل بخدمة الأبيض وقال بقاء ولا زاد في أبي كنت لغادي عليهم كسماواتي تحية المريد بالدلل خدمة الأفهام أبكي عليه وارجو في المضايقة وأنا من في فبوب الخلاوات تخيل نمر البدقل بخدمة الأفهام يا لا لا لا العقاد الأقاد من الأبود راب لأهم للولاد برما أبل راب يا لا لا لا يا لا بعد الأقاد من الأبود راب لأهم للولاد يا لا أكابر مولانا ربنا تبكي الليالي عليه مسؤول للذي بوجد القلب وعادي شعور ما في بوجد القلب كان عبادا بدعاء الوعي ما وقد قال اللهم عبا بمنادي حبي إيمان كان جل ربنا بمنا كان يهودنا تارك الوتنا كبائل من الخلال من سبعة المصيبات المصيبة مسبا من اللال من الأسباب المسيبة باع فضال البذيجر العيخالي اللهم في الليل باع بالمناجات باع فضال البذيجر العيخالي اللهم في الليل باع بالمناجات تجف المدعج أبي ليل ناس سلمى والإلا بالبصارات المدعج أبي ليل جنوبهم ناس سلمى والإلا بالبصارات تجف المدعج أبي ليل سلمى المدعج جنوبهم وما الذين وليله بالمسارى فاقف مع البلدات الليل بمحجته لا تولوا الى المولى بطاعات فاقف مع البلدات الليل بمحجته لا تولوا الى المولى بطاعات فانسان الليل وزولا في عيننا بشانهنا بأذكار وآيات فانسان الليل وزولا في قيامنا بأذكار وآيات حدث أمسر بولي نفي لا سجندي ولبنا في المقالات حدث

أركان بيت جميل خمع أرباب يا جاس أشق عن ولايات أركان بيت الجميل خمع أرباب يا ولايات خمت وجوه دليل بدء سعر أسود أوسهم خلب لسعراد وجوه دليل بدء سعر وخزلة عذيوء بالنزارات من طريق دوم نقف المريد على إلى المريد وأنواع الفرورات من طريق بن المريد وأنواع الغرور تاريخ قد واجئ العين والمعلوم الذي تنفرعون نادي قد واجئ العين الذي تنفرعون نادي بدل ما انتروا من دوام عبد الخناعات برجال الله من دوام البخلاء واجد في كل مال المدور بعد وكل صدر كل ساعات البنور الله القرى كل صبر كل ذا في أدنى عبد وزوجر بفداء فقلت وابي إلى انفعال البريات أدنى عبد وزوجر بفداء فدائر بالبرد فابي إلى انفعال البريات تاريخه خرجت حمدا على العاصمة لا بد منها لأرباب الإرادات خواسم لا بد منها عليها أرباب فما سد الغرباء بلا سبب نادلي بالكفين قيس الفضاء عادي إلى سكر الدين فاسد لا ودخان العسل والوقوع الذي ينفي النجاسات فاسد ودخان العسل والوقوع يجري الليل ألا من المطايا بهم بعد الأليات جل ألا ألا ألا من المطايا من القاسب عاجز القلب من أبا لبريخة أفضل بالأخي خادم لنا بطريقة بيان فمن لوازم آل العجوان أتدل يا سريع في بدء وخيات من لوازم آل العجوان أتدل فارخة الويل وعدل أمي الوظائف سلخل في الخوات إمام الوفاء بذل والكل بالجملة لا ندل أتبي يجل مريد مريد الفخوات والكل بالجملة لا ندل أتبي يجل مريد Sëriñ Bamba ne na kullun min al-qawmi shay'un alimul wali minhum muradin bi azkarin wa qalati mbooloo mi def leen ñu màggal Sëriñ Tuuba ko def yàlla nga gudd fan ak ñu màggal Sëriñ Tuuba murabbuma ca kaw Sëriñ Bamba ne na kullun min al-qawmi shay'un alimul wali minhum muradin bi azkarin wa qalati سب سنفل لله جمال كل من القوم فيؤن عالم الورد الأمر بأذكار وخلاعات سب شعيب الله جمال كل من القوم فيؤن عالم الأول بالأمور بأذكار وخلاعات شيء لمنكر بمبم من من أمور بالبعامل ولا أبدا بالمرا بالمرا بالمزارات بألف هدى أبدا من مراد سن بامبن كل خبير بأدواء العلاج هب المريدين وأذخاد أدواء الخلق بما أن في المريدين وأذخاد bamba ne ne kullu dari wal dakhil shawdan wasa bi nadriya dali kulli bariyat شوقا وسابنا كل البريد من بمبن كل قريب ملتخي شوقا وسابنا بنبي آدم كل البريات سأمين زيادة من كل البرية وما بتقوى الوزارة في جملتي هيل من من المولى سنيا شفاء شفاء شفاء يا من يا كل من المولى سني يا هادي كل من من المولى سني يا هادي كل من من المولى سني يا هادي كل من من المولى سني Modou Moustapha moo indi raay bi jumaa jumaa ji moo indi Seex Bamba ci biir Moustapha moo di waaj addi fan dama dima dima ne soba sëñ Modou Moustapha moo indi raay bi dama dima ji moo indi sax Bamba ci biir Moustapha moo di waaja dima dima dima dima mami Serigne Mbacke soxna loo indi raay bi duma jumaa ji mooy indi sax Bamba ci biir Mustafa moo di waaja tunaaji noonu Seex Bamba ci biir mami Sëriñ Mbàkke soxna loo moo indi raay bi fadu maaji maaji moo indi Seex Bamba ci biir Mustafa moo di waaja Xadima fi da taam ju maaji moo indi Seex Bamba ci biir Mbàkke leen borom daaru Xuddoos moo indi raay bi fadu maaji maaji maa yéene fexe baam ba ci biir masalaam majuwaaja mbooloo mi na ñëpp di ñu màggal borom Touba di leen ñu màggal borom Touba maa yéene fexe baam ba ci biir masalaam mami Serigne Mbacke soxna loo moo indi raay bi fan bu maa ci maa ci maa yéene fexe baam ba ci biir masalaam majuwaaja bamba ci biir Moustapha mooy waay mooy ndiraay bi Moustapha Moustapha Moustapha moo fi def ci baaji mooy li Seex Bamba ci biir Moustapha moo di waay عجوبة وهي سريعة في بدء وخيات ورفقة وهي إخوان لهم إمام مع الوفاء بصدق في الأخوات والكل بالجملة سعادة سخوا يا ابو كل من الخوم شيء عالم ورئ منهم مرب بأسكار وخالد منهم مراقب بخالد وحدا أبدا منهم مرب المراقب بالزاراد كل خبير بأدواء الخلوب معا يد المريدين نعم أنواع سقاوات كل كريم تقي سؤال هدى سهدا سهدا ولا يمضون في أدبي كل البلاد وما بدخل من من المولى سنياتي همتي تاريخة أهل الله وادحة للمهتدين جميعا بالفيودات كل لائمة يرحى بها أبدا إلى عزيز المحسن سيدات ذا الخفايا سرين بابنين نينا يا الخفايا يا الخفايا سرين بابنين نينا يا الخفايا والخفايا بعين القلب زايرة الجمع زائد ما تحت لك نبي يحيي الضياء كالضوء شمس قيسنا آه يسا بها كل زاس ذي سنارة يقيب عن كل كون يقيب عن كل كون للمكون ذا نور الذي من وسيل من يوم بعد يمر والمعسل أنسب النجاسات أولئك القوم أولئك القوم لا يسعى جليسهم إن يكسبون المريدين سادات السلام عليكم wa rahmatullah taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Ibra waaw waaw suñu xol seet na ndax damaa jëndale xasida yi ni fi jàng waaye ñi ngeen ñu booleel ñii di ay rak ñii di ay jarbaat ñii di ay doom ñoom ñëpp di ay jànkat te ñu bokk nekk ci biir fii ñu dalal euh, di nit ñu baax maa ngi leen di seedeel yéen waa àdduna bépp nii euh, ci bisub koor yi euh, ni mbooleem jànkat yi féete ndaw ñu war maal seeni mag lañu ñu war maal seen i mag lañu xam ngeen ni kii de mooy Maxtaar Fall bu xombal waaye gis nga ko bu ko neexoon mu ngi damay jàng comme ñëpp du lii duma ci fekk waaye mi ngi nii euh, Moustapha Seck léegi ci biir bu Thiès waaw na jege si waaw moom na jege si ñu ni bi ñuy waxtaan léegi de mi ngi naan ma mbub ma la ma ma la diggoon day koor gi koor gi koor gi dafa jàmp waaye incha allah bi après koor gi dinaa ko ñëw indi la ko ba teewoon Cheikh Diop Mbaye sànq bi may nuyu li ma ngëbal mën na maa yóbbuwaat Tiwaawan loolu day day firndeel lii wekk wekk nañu lool seen seen i magi jàngat kon ñoo ngi leen di ñaanal euh, yàlla na leen barke xasida dal ci barke Borom Tuubaa mbooloo mi fi teew it ñoo ngi ñaan ci barke Ahmadul Xadim kenn ku ci nekk sa bëgg-bëgg weesuwul sëriñ bi Eh, yàlla na sëñ Tuubaa doon leen dimbali te dimbali ñu ci barke xasida yi jërë ngeen jëf. Eh, suñu xol seet na baax. aminta aminta jërëjëf Serigne Modou Dieye seen ci ci kàddu yi nga fa wax muy xasaayit te tabarkàlla yëngal nga saal bi bi bisu korit di yàlla na doon téeméeri korite ci yow yeneen. te ku fi ne yal na yàlla gu soxna Amine ci li am na solo. dëgg la Baye Ibra am na solo lool macha allah. muy taxawaay bu rafet te yaakaar naa ne rek lii lañ doon xaar ci Lamp Fall lii la ñuy séen ci Lamp Fall mbokku taalibe yi nag oyofal seen bopp lool. def seen bopp nag ay taalibe dëgg dëgg kon dañuy ñaan sëñ Touba teel leen seen taalibe bu def leen dëgg dëgg ay murid sadiq te defal ñu ko kon dañuy wax rek sëñ Moustapha Seck sëñ Moustapha Seck xasaayit de Thiès tey ñu xool dum ñu la ilaha illallah yaakaar naa gars yi foor na mooy tëj guddi gi sëñ Ibrahima ndëwaneel yi foor na macha allah waaye ci nekk boo joxee ñu mhm. xasida yi topp Hmm. kon dañuy wax sëñ Moustapha Seck mu jege si. sëñ Moustapha Seck. bu Thiès. bu Thiès mën naa jege si. Cheikh Diop Mbaye mi ngi fi. Cheikh Diop Mbaye tamit wax nañ ni ñëw na kon mooy tëj. moom mooy incha allah. kon dañuy wax sëñ Moustapha mu jege si. sëñ Moustapha Seck na jege si. ndax moom mi ngi bawoo moom tamit bu Thiès. maanaam yooyu ñuy séddale muy bañee gâteau yi ñangeen yi nañ ci def ndànk ak jaañeen yi waaw. waaw gis naa leen. soxna Minte. Mbacke Baye Ibra. tubarkalla ba tey rek ñu ñëwaat ci ñi nga xam ni ñoo leen jàppale ci seen tool yu rafet yi. waaw Baye Ibra gis dafay lu am solo. lu am solo Baye lu solo ngi nii. macha allah ndax ñu ngi koy defal ñeneen ci leneen. dëgg la bu ko defee ci ëttu Serigne Touba ci bis Korité. Mhm. man mën nañoo jàpp ni kon ñooña xam na nañu lii mooy lan. dëgg la Baye Ibra ñoo ngi di ñaanal. sëñ Ibra dañuy ñu anal waa Touba Prestige Couture. di hmm. sëñ Baara. nekk ca rue Flexifort. ñu ngi koy hmm. nuyu di ko ziar bu baax. ndeysaan waaye soxna la Sylla. Sicap hmm. Liberté 2. moom moo ñu coiffé moo ñu maquillé ñoo ngi koy ziar ak soxna Ami sa moo ko defar. ka nga xam ne mooy boutique Guèye Ñaay nekk ca HLM. ki fa nekk di sëñ Omar Guèye. cuubu kanilaa yu riche yi moom moo koy jaay. ay gestionnaire lépp lu baax ci wàllu cuub. wàllu gestionnaire basin moom moo koy jaay. waaye nag Pape Fall gaawaan couture. maanaam ñaw bi ku ko xool xam ne yàññi na lool. te mës a teggi loxoom nag moom Pape Fall nekk Liberté 2. saa su ne moom mooy ñaw ñaw yi am solo. ñaw yu murite ndax xam nga léegi ñaw yu murite moom moo jafe sëñ Ibra ndax ay daggit rek la ñuy gis xale yi di sol li nga sol dina cher lool waaye nag vraiment du ñu mën a wax ne yiw na mhm. waaye gis nañu gaawaan couture li muy sol ak lu muy ñaw maanaam yiw na lool dañ koy sant bu baax di ko jaajëfal ndeysaan waaye itam di sant ki nga xam ne mooy la reine du foulard muy walin nekk cité Fadia chapeau yi moom moo ko defar di liggéey bu am solo bu muy def waa best Pape Fall Pape Tall ndeysaan ñoom ñoo indi xoolal xoolal jus yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw table bi te best dafa am ay catégorie mhm. am na yu ndaw am na yu mag mhm. am na boo xam pour benn nit la am na boo xam pour couple la muy liggéey bu am solo ndeysaan waaye comme nag euh, suñu sëriñ dafa ñëw sëñ Moustapha Seck du ñu def rek lu dul jokkoo jàddu gi mu nuyoo ñu fa seenee xool nag àddee gi ñuy baaxee naka lay toll moo gaa yi kan mooy raw waaw euh, soxna Minte Mbàkke mu xaat na mat bu neex bi ngay dégg ci Lamp Fall kii mooy Moustapha Seck moo ko jàng ba tax na ñëpp dañu ne Moustapha Seck ñëw sëñ Moustapha asalaamaaleykum wax ma fi nga jaar ak ci ñett kàddu rek foo jàngee noo def beeg si fii tey ak yenn sacrifice nga def. waaye jërëjëf sëriñ Ibrahima ñoo ngi ziare mboolem ku fi teew ci turam ak ci santam. di sant yalla sun borom di julli ci sayyiduna muhammad di sant Serigne Touba di ñaanal suñuy wajur ñu yàgg fi lol teer yalla ñu leen yalla fayal ñu ngi sant wa groupe Lamp far yeb di ñaan taxaway bi yalla na ko yàlla yàggal ah, ñun nak suñu jaar jaar moy jang nañu alquran ci sañ ko doon jangé wax yalla ci daara Serigne mohammed Diop fa la ñu mottalee sunum njàng ah, la ca des it xasida yi ñun ci la ñu juddu dañoo fekk sunu waajur di ko def ànd ak Serigne Fallou Ndiaye ak ay rakkam yëpp ak sunu ba ca suñuy maam loolu moo nu boole ci xasida yi. wax dëgg yàlla ban xàmmee ba léegi xamul lu lu xasida loolu rek mooy sunu jubluwaay ah ba yàlla baaxee nu ñu ciy jéem donte la mën a gunéet ñuy jéem rek ah kon bu ko defee ah woo gi ngeen woo it wax dëgg yàlla lu nu ñor la luy ci nun la ah, waaw bisimilah kon ñu bàyyi sëñ Moustapha Seck mu yéeg ci kaw ci podium bi moom tamit génne li nga xam ne moom mooy addiyaam naan ni ndëwënal gi waaye gu foor la bëgg da ngaa am sas ndax ñi fi jaar ñëpp nag dañu joxe dafa diis lool kon fexe la def ni ñoom baa nga ëppale leen <laughs> kon bisimilah sëñ Moustapha waaye Baye Ibra ñuy nuyu Lamane Diagne nekk ci HLM ndax mooy bijouterie bi nga xam ne moo ñu euh, takkal bijoux yi ñuy takk yëpp man a soxna Ami Cissé kon ñu ngi koy nuyu sëñ Moustapha kon ñu bàyyi laak euh, kaddu gi nga baax ñu si li nga xam ne mooy xasida yu tedd yi

لسنة الله مسكن ابتداعي وجلو يا ربي آب مسكني في أرضنا لك وللماء السني ولتحمي داري عن الفجور والفسخ والباطل في الدعارين نفسك في لمدامنا ودلع الخير من الجهات الست وفيها العفايت عفايتي هني أن سيطان يا جليل ومسكن وكل ما أقول يا لاوي يا عزيز يا سرمي يا باي خلق الخمان بالقهر نفسي وديني ثم علي والولاد ومسكن لك وديعة نبات نفسي وديني أبناء زمن وجنة الإخوان من مخارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن إذن ودعبا يا السماد تولني ولا تكلني لعاد ورام جميع المسلمين أبدا وصلي وسلم النصر السرمدا وارحم جميع المسلمين أبدا وصل وسلم نصر مرا على محمد وسيلة لك ولي عين عندك وتصرف الصلاة للصحابة عن آله والهجابة الوجابة قتل الصحابة عن آله وأبي الإجابة سلالي صفاها مجير مستزم لخير ابن الغير لخوات تسسز سلالي صفاها مجير يسير وخير بذم الخير وخوى تسسس سددت لبنا داي قبل مجاهدا وخاتب مناني هدى كان يرلني سجدت لبنا داي قبل مجاهدا رسول الله رسول الله صور رسول الله صار رسول الله بخاد للمنى وقد كان عني كل شيء يصدر صفت في الآلاء إني مهدس بكون ختم المصطفى ختم المصطفى ختم المصطفى ختم المصطفى ختم المصطفى مستوى خديم المستوى وهو سليت وجيت البار في البار خادما لمن اخجل اليافذ ما كان يلفل سلامي جلال ملتقى قبل فانتفى لدى الباري ولا الخالد القلب يغلظ شنو في من وجاد آه من النبي وكلا بما آخر هنا زار ينام سلامت دوائي كل ما رمت بالسواء ورم من خير ساخ من كان يمل سماء الذي ينال وقفا سماء من يروى بدام ومن بسر العزم سلام الذي ينال لا سلام من ينور قلب من والرين يوقن نور من تغالي للسنن وينو إلى الله دائم تافل من النفي والبار في الجلد والنفي يمين نبي فيها حتى يزوز تدان عليه الصلاة والله الله في ولد يزار نبي فيها خفايا لزيدنا عليه الصلاة والله تابي الله بخي في يجاوره كل خدي من نبي يسبس خربه وخرج بساني يسير لكلامي واسى بزرمدا ويخاب سر غابا من خير المعين وسلم بالتهيم عليه بالي وسبي باخ بيفص بالطيب وسلي على المختار بالوالي كل عين وسبي مغني عن القد والغني يخاطبني آخذ لي بندانا أبيا نجيبا مهما فاوق الرعي يقول اللسان العالي يكون قديما وما داء بالله زارعي وخيني والجنة الجنة باخيبني إذا هو بالمختار كليتي معي ملكت بربي موج الموج واليمين نبي لسي أنجا هذا الملك كالخمي مرامي وعجات لربي توجد بحمد وشكر وكان بالسكن مرادي كوني بربي خديما وخاتب بزور والبسا عصم مساياك يا كل ماذا الكل خطيرك ولكن الخلق مثله عليه سلام من ولم يبتل وكذب محمد بالمعروف معين ومانع وبالاسم مخصوص مسؤول عن الوصف مجيب مجاب برتب الملك إله مبين مبعوث للحرب والعجل بدون جلانا بجنان ولي ومنزول من الناس والواثمة ذات علم مدينة مرسجة منة لنا منة لنا منة لنا منة لنا منة لنا قصة سيدنا محمد مدينة بالمن مرتجا منة لنا منة لنا منة لنا ملة لنا جريون من جلم سناب هو من جلم ما الله هني بالنبي كل فاضل وزدان خديما بلا غم من الله ربنا شبغي بلاده بتسليمه والسبع المخجل اليوم من الله ربنا ارتبطي جلاله بتسليم عين والسوال مخجل اليوم سيد سيدنا فجلبات لواليه فهو مختار سيدنا فوج البطل عليه مختار أما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ البتول فهو مختار رسول الله رسول الله سوج البتول عليهم فهو مختار هو سجاد الصلاة والإرسال ما صارت النبي والخربية والمسوى والجيار وسجاد والرسال والعب والخرب والجيار جيار هو سجاد أطول إرسال ما سارت النبو والقرب والأنس والجوار إرسال والأب والقرب والأنس والجوار تلهم الباب الأولى أبوها ستني ثم لا إن يا والخير والخلف من سيارة رب يا أبو ستين ثم هدى الملائكة والخلف من سيارة كل باب العلوم أبو ستين ثم لا يا الملائكة والخلف من سيارة

ربنا صار رسول الله رسول الله خير من المزار لو أخار رسول الله من المصار بالمصار خصلتان أقارن من تيمن ومن سجاعتي أنبات موتي وخفرات وغبر ما كان ومن سجاعتي أنبات وتجيا فخفرات تسب رسول الله هل يعب ردتي ولم يسبقوه من الآخر الدرايا yàmbooloo mi ñaari loxo ca kaw nga màggal Seydina Muhammad yëkkati leen loxo yi ca kaw nga màggal yeneen bi تلم أكون كلي عدل بات يا رسول والمصطفى أنه من الحقيقة مصارى يوسف رسول الله كون كله أبيه بات يا رسول المستدى أنه يكتب سيا كل عدو علي إبردة لا إله إلا الله قال المسلمون قد يدرايا خير الخلق ألم يشوف من علي بردة خير الخلق مت loxo ca kaw nga màggal yonent bi walam yuslim hum hilal wa karubrar ma kawni kulyadin كريما وسائما ودفاعنا وبخيل من جار وحينما خرج مختار واجع بخبدة الله من ترى بالوليد وحينما خرج مختار Busca de mentura. بلاء جلالا من بلاء جلالا أنا قلت لا بالاستار سألته جل جل بالمختار ثم به لا أذان الذي يختار اختار وأبلياء زيارة بالمختار السمدين لا أخالف تما يدل الجرار سلسال مكة سلسال مكة خلقنا جوينا دل جوينا خبار بجوينا جل سرسال saaliw baara yi jooy na donga yi jooy na jirimi jooy na noo jëmmi sëriñ jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf wax dëgg yàlla dëgg yàlla temps bi ku ne xam na ni dafa xam na ni dafa xat wax dëgg yàlla xamul woon ni sax nii lay demee nii lay demee information bi xaw naa des tuuti tuuti bi nu ñëw xamul woon ni nii lay demee nii lay demee waaye nag mbirum Serigne Touba ni lan jàpp ne moo mel noonu kon nag ñoo ngi sant bu baax tey jégul tey jégul jàpp nañ lu mu guddi guddi guddi guddi nii suñu kër lañ sama kër la may fekkaat waaye nag programme sëñ bi moo mel nii kon ñu ngi jégul bu baax te ñaan lu ngeen def yàlla na ko gën a mën ci barke Serigne Touba jërë ngeen jëf jërëjëf bis bi des na ko bàyyi xel de. loolu lu dëggu la Baye Ibra. bisu tey jii. Baye Ibra bis bi am na solo. bisu tey bi des na ko bàyyi xel. dinañ bàyyi xel lool Baye Ibra. sëñ Moustapha Seck jërëjëf. Cheikh Diop Mbaye na jege si mooy tëj guddi gi. ñu wax Cheikh Diop Mbaye mu jege si. waaw. ndax yaakaar naa moom moo fas yéene tëj guddi gi. Mm-hmm. yaakaar naa seen Cheikh ndax kenn du ko présenté Baye Ibra. ndeysaan. Cheikh Diop Mbaye ku ko gis si tànt yaakaar naa sa yaram day daw waaw ndax bu yuuxoo rek yaakaar naa ni bâche bi yàlla bu wadd suñu kaw <laughs> waaye comme du bâche nag alhamdulilah ndax fii dañ koo miir ba mu dëgër kon ñu wax seen Cheikh Diop Mbaye mu waajal ñëw jege si li nga xam ne moom mooy euh, tant bi. ndeysaan. parce que nee na dafa jullit yi xam naa ni ña ngeen bi dafa dafa foog ni. Euh, ñu ngi wóor ba léegi waaye tey la korité ndeysaan la ñangeen bi xam loolu ak jaañeen bi tey la korité xam du weesu na xanaa di winit ah. li nga teg sa kanam moom la jaaxal waaw ndeysaan ba mbokk la jaaxal bismillah alaaj Cheikh ñëwal laa ilaaha illallah ñangeen bi daa foog ni ñi ngi wóor ba léegi waaye tey la korité na xam loolu nag laa ilaaha illallah <laughs> ndeysaan alaaj Cheikh toogal ñu tuuti ma la benn affaire yéen yéeg leen ci kaw yéeg leen yéeg leen gaaw yéeg leen yéeg leen na gaaw na gaaw tuuti na gaaw na gaaw tuuti mbokk yi ab dégloo tuuti ngeen jàppale ñu ñu daal di yeggale li nga xam ne moom mooy ndaje korité ngeen déglu tuuti rek tuuti rek Alaaji Cheikh Diop Mbaye mooy tëj tey bisu korité gi mbokk yi ab dégloo kon seen Cheikh sëñ Cheikh. sëñ Cheikh. dama lay bàyyi bàyyi Ibrahima jox leen micro bi. ñu lay siyaare bu baax. aminte. aminte. kii yàlla dogal nag maag moom ñoo àndoon dem Makka. bokkoon Makka ak Medina. en 2005. tubaarkàlla jàng nañ fa sax benn si ngont Mohamed maag moom. sallallahu alayhi wa sallam. day Medina ca Makka. daayira France bi ñëw fa jigéen ñi association ba di wër ba gis ko. ni ko dina bëgg benn ngoon Seydina Mohamed waaye kenn mooy Cheikh Diom Baye Cheikh Diom Baye salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bu baax ziar bokki taalibe yëpp ziar Seydina Alioune Thioune ak mboolem ku fi teew Cheikh ah, benn dong la boo xam ne dong Sëñ Tuubaa la ko bëgg di koo xam ni ah, bëgg-bëggam lépp sëriñ bi xasida waaye mu mel ni. Eh, dafa gimmi rek fekk way juróom ne ca kon mu mel ni la way juróom jëmbatoon moo meññi ba mu ñam ca di ca dox foofu mooy Cheikh Jom Baye waaw di koo xam ne eh, rek fu man di dem Sëñ Tuubaa ko moom lu manam Sëñ Tuubaa ko moom jaamu Sëñ Tuubaa la ca mu lay doon ba yomal xiyaam alhamdulilah boo koy Cheikh Jom Baye kon ñu bàyyi seen Cheikh mu yéeg nga xool moom ndeweneel am muy toll waaye mooy tëj ndeweneel gi nag fu mu toll nii mané ko mom moy tëj ndeweneel gi sey Cheikh fexel oppel ñep nak xolal ñi fi jaar ñëpp macha allah mention spécial waye dañu bëgg sa ndeweneel gëna a dul lépp. ah. فدي اللسان ارجمانا فلي مع الله في البراء لسانا جنا بنا صب خادم فلي مكبرا جماجي وفي البراء سعد لسانا سيما ما وفي البراء bay sunu doy tuuba doy loo nanu ko sib baraay asaadi amoo morom Cheikh Bamba yaa demoon tundu jeewal suñ borom saag li saana ay jamaa selima ma suñ borom sopp sëñ Fallu say faatu tàbbi aljana tuna bayu alaaji baara ba صحفة دائرة متمايرة ملا فعلك الجورة متمايرة فلك بجورة الله يفلوك صحفة دائرة متمايرة فعلك الجوراء وابنما خليل سرايا ay badar ya dar ko mu ñëw Tuuba Cheikh Mourtala góor yàlla am saraya an xusiyaan ni la gëlaal mala waa ni la am saraya ay badar ya dar ko mu ñëw Tuuba sopp Cheikh Mourtala góor yàlla am saraya ni ita خذ كتابا كتابا متابا يا سيدنا كتابا كتابا كتابا كتابا يا سيدنا يا سيدنا يا خير ربي خير مراد ملا المراد المراد بيت دعوة صل وسلم المتعب الدنيا على المطعم على المطعم كل عبد محمد الخبير كبير الله يبارك تقوم فوضى بين الصلاة علي رب من الملوك أحسن خلق خير الورى سيد الورى محمد أخلي سلامي رب النلوى رب القرى أما جاء سلامي في الجلال والإكرام رب القرى Seex Saaliw Mbàkke dimbali te du la amul morom am nga ku dul jeex loo bi doomi Bamba Saaliw Mbàkke dimbali te doon julit yi jëriñoo yëpp sa baay la mu doy na doomi Bamba Baay Saaliw Seex Saaliw Mbàkke dimbali te du la amul morom am nga ku dul jeex loo bi doomi Bamba Bamba Baye Saliou Cheikh Saliou Mbacké ci bant bu mag am nga ku dul jeexle di doomi Bamba Saliou Mbacké kurir jaamu la ilaha Baye Sal fekk na baayam doomi Bamba ay alhamdulillah mu sant yàlla war santuk Serigne Saliou Mbacké ma xam na illa mbooloo mi képp ku ko yàlla mam loo nga jóg la ca kaw màggal Serigne Saliou ku ko def yàlla nga fekki déwén ci barke Serigne Bamba illa ah, alhamdulillah mu sant yàlla santuk Serigne Saliou Mbacké ma xam na illa alhamdulillah

sant yàlla cant Sëriñ Saliou Mbacké ma xam nga alhamdulillah Faysal jërëjëf Mbacké xam nga alhamdulillah nu sant yàlla sant yàlla sant Faysal سب سيخ سالي ولخطوك وسنت بايزا الحمد لله الحمد لله آه، سنتي يا توا سنتي يا لا سنتي بايزا الحمد لله سنتي يا لا يسي خلاص الله بايزي حمد الله الحمد لله mi sant yàlla sant yàlla sant Baay Faal Muhammad màggal Seex Saaliw am xiwal ndax baayam a demoon gi alhamdulillah sant yàlla sant yàlla sant Baay Faal Muhammad مجال سيخسالي وامشي والخلخ بايا مدين جيت الحمد لله يا سنتي على ربتي على سنبا عزال محمد الله baay sëñ Seex Saaliw baay sëñ Murtala caat ah ca tey waroon ay lala ah, leneen lu dul jeey lala ah, maa ngi sant lala ca tey waroon leneen lu dul jeey si ci jàmm maa ngi sant ah. fa kay waral la la ba leen lu dul jeex la la man maa ngi sant Allah Nyonyo Elelu doge Chinyani Abangi gato Anima ana Sri sayu ya mekhanda Lola Ya mekhandonda Lola Anima ana Samsara sayu sayu ya mekhanda Batuba Khodonda Mekhakhilkom Anima Jannatu makhwa ya mekhanda Jannatu makhwa ya mekhanda maama xadoon نغمى عنا سب سوى سالم زاد يا نقام سب سري سالم يلني سلوح ممكن سمو سقد فتوبة ورم خلقم جاقي يا خام غام خدم نغمى عنا سب سوى سالم زاد يا نقام دمتي دمتي خدم يوشي توبة ذنبنا لم شكورا إلا شكورا ألا شكورا صرف صلاة الله شيخ الخديم ما سكر ما سكر الله سكر سكر لا اله الا سكر لا سكر الله سب سرين بابا لحجاك ولم يمر قلبي أهلنا يا أبو الله أو دار إذا الله ولا إله إلا الله awda awda awda awda awda awda sopp mam seera faal amma jere jere sara jara awda insamba awda awda ajalu qalbi awda ayni qalbi awda awda awda awda awda awda sopp mam seera faal amma jere jere sara jara بائسا عهدهم دعوا أبيض قلبي عين قلبي أودع أودع أودع أودع أودع أودع أودع أودع تبت شكريا وارنا بيجي شكريا يلا ini jalan wa amal jalan wala ni ñoo ko nekkoon doo àjjana Serigne Bamba yaa ngi ko ci bëgg a dugg ku ne te doon taxaw ca Bay jaxate ne pëpp jëkkër wa war na duñu jëkkër wa yàlla Serigne Mbaye Diakhaté ne moom bu ko bami bango bami kotogo ajaogo bami bango bami kotogo kotogo Cheikh Saliou Mbacké ba jikko boyoro mujo boyoro koto khula do ado kokuro Sëriñ Saliou Sëriñ Saliou khula do kon jamono yaa ñu moom te taxuloo. فدخلاب فايزال فبايا دمونجي فتخلاب فايزال فبايا دمونجي كسا كسري سالي بايا دمونجي تخلاب فايزال بايا دمونجي كسا كسري ملتقى وسما مدمونجي تخلاب ملتقى وسما مدمونجي تخلاب شيخ إبراهيم faal bopp yaa may sutural kenn la Seera Faal bopp yaa ma sutural sopp maam Seera Faal tanda yaa ma sutural bopp la Seera Faal bopp yaa ma sutural Seera Amar Faal ñaxam jaay ba taxulaba ñaxam jaay ba Cheikh Ibrahima farma yasin dawul ni ci mul malam yo sopp lamp faal farma yasin dawul ni ci mul malam yo sopp lamp faal farma yasin dawul ni ci mul malam yo am na soppay lamp faal farma yaasin ba war ni ci wul maalam Cheikh Ibra farma yaasin ba war ni ci wul maalam am na soppay lamp faal farma yaasin ba war ni ci wul maalam Allahu xulaaba loo doon maam lamp faal jàmm ñoo leen yoo te xulaaba maam lamp faal jàmm ñoo leen yoo Cheikh Ibra sëru maam lamp faal jàmm a faal te xulaaba am na soppay lamb baal sëriñ maam say jaay coow li coow li yow am na soppay lamb baal sëriñ maam say jaay coow li coow li yow lampu faal du dul wa nak yow mu ñaaw taxu laa ba lampu faal du dul wa Lamp Fall Lamp Fall bu dul woon ak yow mu ñaar Lamp Fall Lamp Fall bu dul woon ak yow mu ñaar Lamp Fall Lamp Fall bu dul woon ak yow mu ñaar Lamp Fall Lamp Fall bu dul woon ak yow mu ñaar Lamp Fall Lamp Fall bu dul woon ak yow mu ñaar Lamp Fall Lamp Fall bu dul woon ak yow mu ñaar Lamp Fall Lamp Fall faal bu dul woon ak faal lamp faal bu woon mu ñaar lamp faal lamp faal faal bu woon ak woon mu ñaar Lamp Fall bu dul woon ak yow ma ñaaw Lamp Fall Lamp Fall bu dul woon ak yow ma ñaaw ku sopp Lamp Fall Lamp Fall Lamp Fall bu dul woon ak yow ma ñaaw Fall Fall Fall ki da bëgg ben ki bëgg ben ki bëgg benn illallah ya rasulullah géeru géeru Mustafa la la la la dalaay ba ca gëléem nga ma nga des sa njëg wa ca sax aa ilala ilala ilala ilala ilala Muhammadu Rasulullah dama lay way ba dee aa ilala dëgguma lu dul di la way ba dee aa ilala إلا لا يا لا لا إلا لا طائفة بنت رسول من دم لي ويبد إلا لا أما يبنيان مكوي وي أي مصطفى يا لا لا ويبد إلا لا يا لا لا إلا لا حبيبي أمك أنصر lay way ba dee ku way nu way ku wayul jox lu nu way yonen xayrul anbiyaa yonen xare na badar daa badar daa unay bi siise ban ya maama gaaya donoore hay waaw ku sopp Muhammadu Rasulullah la ilaha ana soppe yonen xare na Badar na Badar da nay ni sira gaaya donore ay donore ya mama ya mama ya la ilaha illa رسوله كل الكون لا إله إلا الله مصطفى لجنفوف سيدنا يا جنفوف لا إله إلا الله يلا فمي جلاتي جلاتي هم فمي جلاتي سابتي وصلاة لا إله إلا الله Bakar Omar Usman Aliyo saadatu rasuulu ana soppe yonen fu nuy jëlete moom fu nu jëlete saadatu rasuulu alu bayti rasuul du nu des ginnaaw xamoon noon ya danoo jaay la la la ma gënal te bëgguma gudul xayru lan biya haa ilala geeru giir ñaa ngi siduna Muhammad bi nabi Abdallahi ma ci gën gaa yonar lala ma doow ma geneen gisuma fi geneen giir sax gudul bàyyi faate haa ilala ma gën ngir taxulaa bon waaye man Muhammadu Lamin mooy sama ngir lay lay lala saa aw ma gëneen aw ma gëneen ngir te ku ma gëneen ngir gudu musawa ci dina ah ilala yeneen ngir gu la may fu la meree la ko wala mu xoole la ko loolu moo tax aw ma geneen ngir te bëgguma geneen ngir gu dul Mustafa ci mu dina haa ilala seet naa ko seet Mustafa ma doy jéem man de moo ma doy jéem xamal may doon de li may doon bilaay lii ma bëgg a doon gi wala yeneen bilaay doon ah ilaa damay di way li may doon li may doon man de li ma bëgg a doon gi wala yeneen bilaay doon ah ilaa Mustafa ay Mustafa kenn ko la ilaha illallah amaangi man rugaangi rugaangi rugaangi xol baangi fa bal xayru lan ah illallah محمد رسول الله فرج الانبياء لا اله الا الله صفا من لمن يا من لمن يا لمن يا jalaalu dellu bayti laay yàlla fa àndandoo amit nanu àndandoo ba ca bayti laay ku bëgg a dem taxawaayu arafaat li may ilaa Touba ilaa Touba ilaa Touba bu sopp am jàmm yàlla na ñëpp am ci darajay Cheikh Ahmadou Bamba noo ngi siyaare ñëpp noo ngi tuubal ñëpp noo ngi ñaan yàlla defal ñëpp jàmm ci darajay jumaa ji si naa lii noo ngi la jox sa wàccuwaay baax jërëjëf jërëjëf sëñ ba saal ah! bi aminta mbay jëf fi baax na ngi siyaar bu baax groupe Lamfal gépp di leen sant ci wàccaay bi ak seen taxawaay ci bis bi ñi ci jëf ci seen xel ak seen doole ñëpp parce que bu nee groupe ñëpp dugg na directeur directeur des programmes assistant yi euh, techniciens yi nga xam ne ñoo ñoom ñoo mën a tax ba ñu jàkkaarloo yéen ci bis korité yi nii. mention spéciale ci techniciens yi. waaye nag. waaye nag kenn mooy wax au nom du groupe monsieur Baydi Thioune. bay di la ñuy bàyyi Baye Ibra waaw mu wax ci turu Lamp Fall mm-hmm. wax ci turu directeur général mm-hmm. sant ñëpp mm-hmm. gërëm ñëpp ci li nga xam ne mooy seen taxawaay ci Lamp Fall télévision ak euh, li nga xam ne mooy liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ne ci ginnaaw ñëpp def nag ñun duñu si dara Baye Ibra ndeysaan dañoo taxaw rek di wax jërëjëf waaye liggéey bi yëpp nag mu ngi ci ñii uh-huh. ak ñi nga xam ne nekk ci ginnaaw yaakaar naa foofu la liggéey bi nekkee waaw kon ñu gis euh, dañuy jox Baye Baye ñu fa seen li nga xam ne moom mooy waxtaan bi jërëjëf euh, mbokk yi ñu ngi nii ñëpp di ziar ñëpp ci guddi gu tedd gi ci turu Lamp Fall communication yëpp ci jëwriñ ji ñu sëñ Aliou Thioune buñ ko tuddee tudd nañ Lamp Fall yëpp moom mbooleem personnel bi ci nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu dilen ziar dilen leen ñaanal ñu def ko ay at yu bare bare bare bare ndax li bu ñëk la waye am nañ yaakar ci ne ñépp ñi fi tew contant nañ ci ndax tok fi di def li tay di tag rasulillahi sallallahu alaihi wasallam di wax baaxu cheikhul khadim ba beut set mo gën bu ñëk fet niñ ko daan xamé moy koñ boo romb da ngay dégg musique bi ñuy xalé yi di waja genn di dem soirée di dem bali def lepp ñu tànn guddi gi groupe Lamp Fall communication ci xalaatu jëwrin ngir ñu taxawal li def ko magalé ko guddi gi kon ñi fi tew ñëpp ñu ngi leen di sante ci turu Lamp Fall communication njëkke nak ci yéen ñi nga xam ne yéen a doon anime émission bi di sëñ Ibrahima Thioune Madior ak soxna Aminata Mbaye Gueye ñu ngi leen di ziar bu baax taxawaay bi rafet na lool euh, fàttewuñu tam ñi nga xamante ne ñooy ànd ak ñun liggéey bi fu ñu toll di ci jiital suñu xalifa bi fi teew di sëriñ Abdou Thioune di ziar bu baax tam sëriñ Mamadou Kebe nga xamante ne lépp lu Lamp Fall di yëngatu mu ngi ci yëngu teew na fi sëriñ Nohin Maar ci kilifa yi fi teewoon la bokk ak euh, cheikh euh, cheikh Abdou Ndoy cheikh Ibrahima Ndoy di cheikhu sëriñ cheikh say Mbàkke ak mbooleem kilifa yépp rek yi nga xam ne bii teew nañ fi di bu baax nag ñi nga xam ne it ñoom ngeen fi tudd léegi di ay sponsor ci wàllu sol gi ci wàllu takkaay yi ak ñi nga xam ne it ñoo wàllu xéwal yi ñoo ko fi indi waa best muy sëriñ euh, sëñ sëñ taal sëñ Pape Taal ñu ngi koy sant bu baax taxawaay bi rafet na ci best bi ni ko ak gan yi mu ci terale yàlla na ko sëñ Tuubaa bu baax a baax ci barke Seexul Xadim ak barke guddi gu tedd gi ba tey tamit duñu dañ ci turu Lamp Fall di sant tam mbooleem techniciens yi tàmbalee ko ci technicien de son yi ba ci techniciens yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci régie bi ci njiitu sëriñ alaaji Cheikh ci son bi sëriñ Guèye Mouride Sadikh waaye ci wàllu lumière bi tam xam ngeen ne am nañ ci jàppandi ci ki nga xamante ne suñu jur la di sëriñ Diagne Pape Sëriñ Diagne moom tam ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax a baax ndax jataay bi yàgg na waaye teewul mu ngi toog boobu ba léegi euh, mbooleem nag jàngkat yi ndax jàngkat yi itam kenn ku ci nekk tey guddi gi am na feneen foo mënoon a dem waaye bu la làmpfaal woowee waaw ku ne fu nga programme bari na waaye làmpfaal woo leen ñu bàyyi seen yitte ak waxtaankat yi ñoom sëñ bu saag ñoom ñëpp nga xam ne ku ne xam na leen ñoom tam ñu ngi leen di ziar bu baax ku fi tàmbali jàng ba ci ñi fi mujj a jàng ak ñi fi tàmbali waxtaan ba ci ñi fi mujj a waxtaan kon loolu tam nekk na loo xamante ne bii ak cant la gu baax a baax di sant nag kuréelu soppee Lamp Fall yëpp ak mbokk soxna yi nga xamante ne bii bawoo nanu ci HLM te soxna maam jàlloo jiite ko ak délégation bi nga xamante ne bàyyeekoo na yoof nga xam ne wàllu xéewal yeeg yëpp ñoo ko doon toppatoo soxna Fatou Seck jiite ko ak mbooleem ñim ci àndal ñoom tam ñu ngi leen di sant bu baax ndax tam euh, li tubaab di wax merci tuuti na loolu waaye ku deful dara duñ la ko wax bàyyi nañ seen yitte yëpp ñëw toog yéen doo togg yow fanaan fii kon tam ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ci toppatoo gan yi euh, personnel Lamp Fall tam euh, journaliste yi rédaction bi ñëpp teew nañ ci njiitu Serigne Vieux Diop ñu ngi leen di ziar bu baax buñ ko tuddee tudd nañ mbooleem rédaction bi desk religieux bi tam gis nga leen ñoom ñëpp teewoon nañ fi Euh, ci njiitu sëñ euh, Khadim Ndiaye Kayar ak Serigne Djili Samb Abdoul Khadir ñoo ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ak mbooleem nag ñi nga xamante ne bii ñoo nekk fii ci kër sëriñ Touba gi ubbil nañ ñu bunt yi yaatalal nañ ñu lépp waaye lépp tam lii mënoon nañ koo defee feneen tam waaye euh, kilifa gi dafa wax ne moom lépp lu mu am nu mënti tollu kër Sëñ Touba la koy defee kon loolu firndeel na liggéey bi tam firndeel na ne tam Sëñ Touba. rek la ci jiital. jërëjëf sëñ Beydi jërëjëf. Euh, waaw bu ko defee itam soxna Aminta balaa may bàyyi itam mbooloo yi nga xamante ne bii itam ñooy dégg rajo bi ci fi wër fii nga xamante ne ñii ñu ngi déglu xasida yi ba mënuñoo nelaw ñii ñu ngi ñu ngi def yëpp waaye ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm. mbooleem personnel bi daal sant nañ ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi ñu taxaw ci liggéey bi bu ndoxee waxee sëñ Aliou tudd nañu ñëpp waaye nag du ñàkk ñu tudd tam wàllu coordination bi tam Serigne Ibrahima Gueye ci coordination bi bëggul sax ñu tudd ko waaye nag coordination bi ni ko taxawoo rafet na trop ñu ngi koy sant di ko gërëm ak mbooleem ñëpp nag ñu yor oto yeeg ñëpp rek ñoom sëñ Mansour ba ñëpp rek bàyyiwuñu kenn kon ñu ngi sant ñëpp bu ñu bu ñu suñu xol dafa sedd ba mënatuñu xam sax lu ñuy wax waaye Lamp Fall daal kontaan na personnel bi kontaan na ku fi teew tey kontaan nga jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu waaleykum jërëjëf mbokk yi nga xam dañu boole dérangement ak déplacement ñëw fekk suñu fii ñu ànd ak ñoom di sant Serigne Touba ndax lii sant Serigne Touba dañ ko jàppee ci bisu korité gi dañuy ñaan nag lépp lu ñu woor ci weeru koor gi yàlla ko suñu borom nangu te fulal ñu ko mu ànd ak ngërëm ak Serigne Touba ak tawféex ak Serigne Touba kon bi ngi sant ñëpp waaw As Ndour waaw moom moom borom baax la kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom dafa ñu tawféex ak taysiir te ndege ñi déwén mu gën fee yaatu gën fee xewale ku nekk yaa xam li nga bëgg sa xol yàlla nag sëñ Touba defal te mu ànd ak ngëneel ak tawféex Baye Ibra waaw jërëjëf soxna Minte xanaa di wax rek ni lii moo nekkoon seen ndéwénal ci Lamp Fall télévision muy bis boo xam ni danañ ko jagleen suñu téléspectateur dëgg la noonu euh, waa Lamp Fall di ñaan nag tabaski ga ni daañu amoon beneen plateau mel nii incha allahu taala bu ñu fa yàlla bàyyee nga xam ne daañu indi yeneen beneen innovation bu bees. mu jëm ci bis kon ñoo ngi sant ñëpp di siyaar ñëpp. Euh, soxna Mame Bousso bu sëñ Fallou soin bu ñoo ngi koy nuyu di ko ziar di ko ndokkeel di ziar bu baax tamit euh, sëñ Fallou soin bu moom tamit ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi jot teew ñëpp ñuy wax soxna yi mën nañoo jege si nii nañ jege si nii en groupe. jege si leen nii mu nekk ab tàggoo. soxna jannat yi seen spécial Korité mi ngi woon nii ci Lamp Fall télévision. jërë leen jëf ñu koy ñaan yàlla fekk ko ay déwén yu baree bari. yaakaar naa ni bëgg ngeen public bi bëgg ngeen ba bëgg ngeen alhamdulilah ñuy daal di sant bu baax tamit waa régie ndax euh, lépp yaakaar naa ne régie la woon ci taxawaay bi di sant tamit bu baax ñi nga xam ne moom mooy équipe bi nga xam ne moom mooy yoroon wàllu sécurité sëñ Khadim Gueye ak ñi mu àndal ñëpp buñ ko limee tudd nañu ñëpp ndax yaakaar naa liggéey dafa yaatu ñëpp a ci jàpp kon euh, mën ngeen yegg si fii soxna yi. ñu fas yéene am rek li nga xam mooy tàggoogu mujj gi macha allah soxna yaa dee ngi ñëw gis nañu jaune si ginnaaw madame Thioune mi ngi ñëw waaw bisimilah mën ngeen yéeg nii ci kaw soxna maam bu soxla yi ñëwal bisimilah waaw mën ngeen yéeg nii ci kaw say say am na maanaa yekk na day am bisimilah leen ci kaw ñoo leen di ziar bu baax est-ce mareetu gis nañu vert bi ak tagal bi. sañse yi am na maanaa bisimilah nday pen yéeg leen ci kaw maam bu sa mbay aywa bisimilah ki mooy suñu yaay maam Diallo ñoo ngi lay bégee bu baax waa kay Adja seeni bu maar bisimilah lii mooy tàggook làmp Fall télévision ci bisu korité gi ñuy ñaan fekk ko ay déwén yu bari te bu si ñëw dàq bu ca des ñuy ñaan ay xéwal yu yaatu ci barkeb Serigne Saliou Mbacké waaye di jaajëfal bu baax sëñ Ibrahima Gueye ndax liggey bu jappande moma tax jere ngeen jëf kon bismillah saxna Alima Biba Diallo yow mel ni ci nga bokku yow sax liggey bi bismillah eh def len ni bismillah man soxna jaara sëriñ bi àddina mënu ko xam din sewar jëne àddina di mënu ko sëriñ bi àddina mënu ko xam din sewar jëne soxna jaara mi war na tax jigéen nañ ko sëriñ jëmboo la ca dukkam kii xëy boo juree moo dem yaaram soxna jaara bi ak dina mën koo xam ding seen junni aw fi maalikam na ko jërëjëf jërë leen jëf jërë leen jëf jërëjëf Serigne Touba incha allah incha allah ba tabaski ak jàmm ba tabaski ak jàmm incha allah